xam nga ñun li ñuy wax rek mooy ñaanuñu yàlla mujjee puso bi mu réer mhm. su ma la ko waxee mooy jàmm ji ne ci Sénégal ci mhm. diggante dialogue islamo-chrétien donte loolu sax du baat bu am mhm. euh, mooy jafe-jafe am na fii diggante catholique yi ak jullit seen diggante musul am jafe-jafe li ma la ciy jox comme exemple mooy premier président de la république bi njëkk am catholique la kon Sénégal débat boobu kenn mënu ko fee indi Sénégalais yi topp la ci il faut que ñu xam président Ousmane Sonko ñu yar circonstance la waxee wax ji defut conférence ko cee laaj te nag wax dëgg yàlla am réew moo xamante ni quatre-vingt-quinze musulman ñoo fi nekk am ay jullit yoo xam ne dañuy jàng ci école ñu naan école bi boo fi jàngee doo muuru kenn mënu ko accepté xel mënu ko nangu mhm. loolu bu ci président Ousmane Sonko tonto woon wala premier ministre Ousmane Sonko tonto woon neneen ci lay jaaxal Sénégal yi mhm. mais ci tonto noonu la ci waroon a tonto mhm. kon jàpp naa ne abbé boobu ci wax man pour man dafa juum rek bu démb doon tey mën naa am du ko waxewaat noonu te it ñu ci bëree bëri ñu bokk ñoom rectifié nañ ko ndax euh, bii di Pastef li ci bokk ci ay catholique kenn xamuñu toll te ñi ko gën a porté mën naan la ñooñu ci bokk kon débat boobu ñi ko bëgg a implanté yóbbu ko fu nekkul ñu duñ leen ci fekk est-ce que tamit jëwriñ bu njëkk bi moom itam mu ko waxee jàppoon ni itam moom mënu ko woon régler d'une autre ñu xamul PM ñooy waxee noonu mais moom du wax lu mu gëmul mhm. en réalité lay fonctionner te maanaam yilif àdduna bépp jërlu ko mu wax lu mu gëmul noonu mu ko gëm noonu la ko waxee te it nag réewum laïcité lañ nekk mhm. kon nit ki lépp lu mu gëm dañ ko war a bàyyi mu doxal ko na mu ko gëmee mhm. Ah, ndax waxuñ benn école ndax tey jii eh, lii ñu doon def ba tax ñuy wax loolu. Hmm. ki jël maire élève bi buñ ne woon kuy kuy kuy dugg ci école yi doosal caay tey jii du jàng ba am résultat yi <laughs> ndax gis nga fa mu jóge ak tey jii li ko yàlla may ci ay hmm. ñu bàyyi leen li ñu gëm ñu doxe ko ni ñu ko bëgg a doxee dem jàngi fi ñu bëgg a jàngi hmm. mais mënuñoo nangu Sénégal goo xam réew mi quatre-vingt-quinze pour musulman ñoo fi nekk ñu naan école sàngam boo fay dugg doomu muuru loolu dëgg-dëgg wax ko sax yabaate la kon jàpp naa ne premier ministre Ousmane Sonko li mu ci tontu loolu lañ doon xaar moom. te bu woon neneen ñun boobaa la ñuy jaaxal. mais fi mu ko fi mu ci tontu loolu lañ doon xaar ci mais débat bi war nañ ko mën a tëj parce que mun na am yeneen njeexital yi nga xam ni euh, waruñ faa mun a yegg. foofu laa waxee ndax Sénégal daf ko soxlawul. ndax Sénégal li mu soxla jamono ji ak li mu traversé ci crise li ci mooy nu ñu fexe ba woote jàmm ci ñaari fànn yépp nag surtout nag débat yu sensible yooyu xam ne xam taal na réew boo demee centre Afrique yu mel leen du ma fa am nag ginnaaw mucc nañ ci ba heure wax dëgg yàlla ku ko fi indi sax jàpp naa ne yow bëggoo jàmm ci moo tax sax euh, bu ma dégloo tontu abbi bi loolu moo moo ma ci xaw a ah, ndax li muy jur ci jafe-jafe moo ëpp li muy jur ci kii te nag ku ci nekk xam ne ne jullit Sénégal yi nag ñu am tolérance lañ mhm. ndax liñ mën a dékku gëm ne benn réew bu ko mën a dékku bi amul mhm. kon jàpp naa ginaa ginnaaw ñu ngi koy dékku ba heure bi dëkkandoo bi rafet mhm. bañ mën ci maslaa loo xamante ni gisuma benn réew ci jullit ko mën a maslaa ci àdduna nañ kon ne de maslaa ku wax màggal wax ndox waaye nag taamu nañ ci bu sell set te lool loolu waral ujumaada indi leen ndox bi gën a mucc ayib ci ndox yépp waaw uujuma de mooy ndox bi gën a sell gën a set te gën a neex lool kon yow mi dëkk Touba dawal gaaw ci boulevard Serigne Abdou Aziz Bara nekk ca Touba route de Daara Jolof ñu jaay la lépp loo ci bëgg ci quantité yow mi dëkk dans les alentours de Touba wooteel gaaw ci 76 868 66 66 wala 75 633 81 82 ñu daal di la koy livreel fépp foo mën a nekk ci Sénégal seen uujuma moom